libération ne ma ba tey ci ndongo gay gi nga xam ne dañ ko fekk ñu faat ko ci wotoom ca Cambérène Basiiru Caam day saa yu xëyee di gën a dugg fekk nañu dereetu nit ca këram bañ ko laajee dafa ne bu xar la enquêteurs yi dafi test gis ni dereet ji dereetu nit a l'observateur ne tey laa lay nettali nag naka la coow li demee gannaaw ba nga xam ne enquêteurs yi léegi ñu boucler seen enquête moom ndongo gay mii dafa demoon kër Basiiru Caam ngir fa ko juróom benn million gannaaw ba mu duggee ci kër gi ci la coowoo dox diggante ñoom ñaar ba jàppante am ca mu jël ab gaz daal koy pompe ndongo gannaaw bi la ko xoj ba ndongo dal di faat mu dal di xottim njegenaayam jël coton ba nekkon ci biir sànc ci bakken ya ngir bañ deret ja tuuru jëlub darab ci neegam mur ndongo tek ci biir neeg ba jaare fa dem marché tiaroy jëndi ay sac plastique ngir mën dugal neew ba ci yoon ba la téléphone portable ndongo yi ci malibu gannaaw bi guddi la ñew jël neew ya dugal ca sac ba wotob ndongo ba gaare won ci buntu kër ga mu ñox ci neew ba dawalam baaxul mu dawal woto ba ca dawal ga yegsi ba kàmbireen ca la feulé ab woto bo xam dafa doon xaar client gum doon yóbbu aéroport international Blaise Diagne daxante ba mujjé yëkkatee borom oto ba mu fël daal di koy dab moom Basiiru Caam mii daal di fay bàyyi caabi woto ba wubbi woto ba daal di daw borom woto ba rocci caabi ja yóbbu ak batterie woto ba te xamul ne néewang ca biir woto ba ba néew ba feeñee ca la dem police defub déclaration xamal na police ka mu gis kan la te ban ko saytoo Basiiru Caam lay nuróol te la mu soloon di yërëb capuche ba fekk nañ ko ca kër Basiiru Caam fekk nañ fay darab boo xam ne fees na dell ak deret ak njegenaay ba nga xam ne ca la dagg génnee fa coton ba takk der yi dem nañ ba gis sax jaaykat bi nga xam ne moo ko jaay sac plastique ba waaye terewul ba tey Bas Thiam day ma ngay wéy di xamle ni taxewul laalewul te yëgul faatu ndongo Gueye mii ne en tout cas moom Barthélémy Dias nag wa ngay woo état bu Sénégal liggéey ngir askanu Ndakaaru vox en tout cas Barthélémy Dias kay nee na xulawul libération ma moo faatu ndongo Gueye di Bassirou Thiam ay trasu deret la ñu fekk ci këram yëgle kaay bi ne en tout cas nag moom Bassirou Thiam ngay gën a dugg ginnaaw faatu bijoutier bii di ndongo Gueye Sénégal ci Afrique la nekk Dakar di capital bi fi leen fekk ndongo gëy ci ab otom ñu jël bakkanam libération yéene ne Basiiru Caam mi nu njort ne moo ko faat police scientifique gis na ay traces deret ca këram looleet gën koo dugal waaye Basiiru Caam li mu wax takk der yi moo di ne xamul loolee nan la mën a nekke libération yéene kaay ne looleet nekk yeneeni kàcc yu yokkaat ci bileb enquête te nag kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaasa ci kaso ngay mujjee fanaani Libération relate le meurtrier présumé de Ndongo Gueye cerné retrouvé chez Bassirukam. Après les éléments techniques issus du bornage de son téléphone, la police scientifique a prélevé des traces de sang mal nettoyées lors d'une perquisition à Pékin Taliboumak. Le mis en cause prétend que ce serait du sang de mouton. Les experts établissent après des analyses qu'il s'agit de sang humain. Interpellé, Bassirukam dit ne pas savoir comment c'est possible.